asalaamualeykum monsieur le ministre de la jeunesse et de l'emploi chers amis et frères Pape Malick Ndour monsieur le ministre de la culture et du patrimoine historique classé très cher frère Aliou Sow monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, très, très cher grand frère Abdoulaye Wilane, Monsieur le Directeur du CROUS de l'Université du Sine Saloum, cher jeune frère Ousseynou Diop, Monsieur le Président du, de l'ONCAV, très cher grand frère El Hadj Amadou Kane, membre du comité directeur de l'ONCAV, Monsieur le Président de l'ONCAV de Kafrine, Elad Insafaï, Monsieur le Président de l'ODECAV de Kafrine, Cheikh Badian, Messieurs les Présidents de zone, membre des différentes délégations yi fi teew tey ma bëggoon ñu dégluwante itam tuuti ginnaaw bi ma sante yàlla sant waa Kaffrine yëpp sant président de la république son excellence Macky Sall bi nga xam ne lépp li fi am lépp li fi am moo tax mu am ma remercier l'ONCAV et tout le commité directeur de l'ONCAV donc je suis d'ailleurs membre honoraire à vie, parce que moi je suis issu du mouvement navétane. Je suis fier d'être issu du mouvement navétane. Le mouvement navétane a été la plus grande école que j'ai fréquentée. École d'humilité, école d'engagement, école de disponibilité au service de la nation, sans attendre rien au retour. C'est pourquoi je suis admiratif de votre courage. Je suis admiratif de votre engagement. Et ce courage et cet engagement doivent être mis au service de la nation. moo tax ma remercier ONCAV yëpp biñ tànnee Kaffrine ñu def fi phase nationale yi phase nationale sportive et culturelle li nga def nii wane na ne culture bi fàttewu leen ko ma gërëm gouverneur de la région. Nous avons le meilleur gouverneur du Sénégal. Parce que, ayant le sens de l'organisation, le sens de la rigueur, mais surtout disponible. Disponible à l'égard de toutes les autorités, mais aussi surtout disponible à l'égard de toutes les populations de la région. li am ni yëpp ci organisation ci njiitalam la moom ak le préfet que je salue aussi et pour lequel j'ai le respect que j'ai affiché pour le gouverneur donc toute l'administration territoriale monsieur le gouverneur ma félicite leen pour la bonne organisation monsieur le président de l'ONCAV man dama kontaan bi ma li ma kontaan mooy dama jàppoon ni phase nationale yi football kese lay nekk ngeen def lii man maa oo directeur de la SONAGED directeur la SONAGED bi ma bi ñu ma waxee citoyenneté lañ ciy wax ñu ne ma c'est le ministre Aliou Sow qui va faire le cours inaugural ma ne bu ñuy wax citoyenneté ci Sénégal fii tey le meilleur exemple qu'on peut donner ce sont les agents de l'UCG qui bravent qui bravent la pluie qui bravent la nuit qui brave tout le temps pour que nos villes, toutes les villes du Sénégal soient propres. loolu UCG la woon rek SONAGED léegi cadre de vie ñëw yokku ci wane ma bëgg lu tax ma ne leen DG cadre cadre de vie ak DG SONAGED Pape Malick Ndour bi mu ñëwee toog dafa ma ne suma agent yi nga mobilisé ma ne ko déet ñii sumay agent lañu ma bëgg a wane exemple alal du mooy defar nit citoyen citoyen dama bëgg ngeen déglu dama bëgg ngeen déglu fii ñi toog ci kanam déglu ngeen ba pare dama bëgg ñu déglu parce que loolu itam ci citoyenneté la bokk li ngeen di def nii mooy exemple de citoyen mbir mi nit lu alal mooy def nit sa liggéey boo ko jaamoo jox ko ak xam gis ci sutura gis ci teranga man exemple laa ci bi may dugg di jàngale instituteur adjoint niveau BFM quatre-vingt-sept mille cinq cent francs de salaire mais quatre-vingt-sept mille cinq cent yooyu samay élèves ngi fii samay élèves màgg nañu xam nañ ni man j'étais un excellent enseignant parce que dama ko doon jox ak xam nawetaan fii nawetaan fii ci région bi lu fi nit mën a jommal rek jommal naa ko nit ci région bi ak ci réew mi ci région bi ak ci réew mi parce que dama ko doon jox akam ministre Aliou Sow moo tax lu nit nit lu muy def na sóoraale ëllëg ministre Aliou Sow ñu def ko ministre en 2002 ma nekk fii chargé de cours au CEM Babacar Koba Ndaw j'étais le moins gradé j'étais le moins gradé de l'école le moins gradé il y avait des professeurs d'enseignement secondaire et le moins gradé c'était l'instituteur adjoint que j'étais ministre Aliou Sow a fait de moi son attaché de cabinet. Nous sommes allés dans le même cabinet. directeur de cabinet yi ñii ngi am maîtrise ñii ngi am université de Washington ñëpp et le ministre Aliou Sow demandait à chacun d'écrire des discours ou bien des textes et préparer ñu indi ko quand j'ai écrit quand j'ai écrit et d'autres fonctionnaires de la hiérarchie A1 écrivaient Aliou Sow m'a app m'a bureau mu ne ma gars yi fi nekk yëpp yaa leen man il faut il faut pas t'arrêter à ce niveau il faut continuer à te attendre nga dem defi enam nga continuer parce que yow tu es que tous ces gens là et en son temps là après je suis allé Claire Afrique je suis allé à, au, à la librairie 80 et j'achetais chaque mois mes livres et je me préparais au grand concours. Tous les concours, j'ai été major à l'entrée. Ah, moi, j'ai du mérite. Là, parce que Sénégal, nous savons Je sais d'où je viens. C'est pourquoi je sais où je vais. moo tax li ma am ak lu mënta am ci àdduna ay mbubu ministre man yéenewuma dara man yenuwuma dara suba boo sumee mbubb ministre bi tu trouveras le citoyen engagé man suba na ministre bi jeex bu jeexee ma dellu fii suma biir mbokk fii suma biir mbokk di toppatoo jàkka yi di ànd ak as di développer dëkk bi c'est dans la tête que ça se passe yàlla def nag Macky Sall yokku ci man lu baree baree baree bare moo tax ma wax li ma wax ci ouverture yi Macky Sall mu nekk président de la république ou bañ a nekk président de la république c'est mon seul leader parce que nit dangay ngay gore ñëpp xam nañ li ma nekkoon démb ak li ma nekk tey li ma mënoon démb ak li ma mën tey li ma mën tey Macky Sall ko ci yokk kon nag kooku pour la vie je lui doit reconnaissance et admiration moo moo tax li yëpp ma koy wax pour l'histoire tey maag Aliou Sow ñoo bokk même gouvernement am solidarité ànd nekk mag ak rak di diisoo ci lépp di waxtaan ci lépp di def lépp ensemble lu ma dese ci àddina laa wax wax naa ko ci wilaan wilaan Aliou Sow kenn dootuma dégg man man ma jóge ci man ngeen di dégg maa ngi xiiroo ak ŋaayoo ak Aliou Sow ça fini ça parce que mon garçon de 18 ans qui yàlla le bac aujourd'hui porte son nom man ah dégg naa benn waaye mu ne doomam bi coow yi moo tax doom amul bac man de coow yi am na waaye sama doom am na bac Et c'est pourquoi je ma bëgg ma bëgg li may wax man nee naa leen man su ma weexee damay weex tal su ma ñuulee ñuul kuk ànd àndu nawle la ànd bi ma ànd ak yéen mooy àndu nawle bi may ànd ak Aliou Sow di ko ànd ak Abdoulaye Wilane di ko ànd ak responsable fi nekk àndu nawle waaye sama nit laa wax ku ne da ngay wuyoo Abdoulaye Sow jàpp ci Macky Sall bugguma nit buy indi seytaane ci diggante nit ñi je le dis de manière très claire je ne suis dans aucun combat je dans aucune bataille man yàlla li ma may bu ko yemaloon fii sant naa ko ba pare moo tax ma bëgg qu'on engage la bataille du développement de la région. C'est pourquoi Mouiman, Mouy Aluso, Doudouka est un fils de la région, fils du département de Malem. Mounon na li mu participer mais mu jox ko ay militants dafa yonne ñëw ba suma kër ne ma du mëna ñëw joxal ma li président Amadou Kane mais c'est ça la continu la complémentarité c'est ça la solidarité ñëpp ñu ñuy bëgg a diviser di ma diviser ak Abdoulaye Wilane tous les jours ou di ma diviser Aliou Sow ou bien di ma diviser keneen intérêt bopp moo tax man bu dee njiitu bu dee jiitu ma jiitu man musuma wax nit man maay seefu benn Bokk Yaakaar ou bien man maay seefu APR mois je suis le serviteur des Kaffrinois il faut que les gens le ñu bàyyi histoire yi ndaw yi histoire yi ay li nañ tabax suñ dëkk dañoo fekk dëkk bu tardé région bu tardé région bu nga xam ni jafe-jafe emploi jafe-jafe infrastructure jafe-jafe yëpp mu concentré wu ci région bi gouverneur xam na ci dara par CRD bu muy préciser problème kese yi problème yooyu nga am problème yi toll noonu ñu lay indi ci ay xuloo ay ŋaayoo yaay lii wii fii kenn du fi nekk kenn kenn du fi kenn yàlla rek ay dara alors moi je perdrai pas mon pour ça mais nag politique dafa parfois mu am animation mu am kumbel loolu ci la faut pas aussi occulter ça parfois gars yi dóorante tuuti ça mais les leaders doivent être au-dessus de cela et c'est ça que nous devons comprendre et c'est pourquoi Aliou Sow et moi là Aliou Sow mi toog nii ku yaakaar ni fii ak suñu bakkan yi jeex da ngeen déggati Aliou Sow ak Ablaye Sow féewaloo mu jamais de la vie parce qu'on a perdu on a perdu huit ans pour rien du tout ça ne lui a rien apporté ça ne m'a rien apporté toog nañu huit ans ku nekk jaar sa bopp indilu ko dara indilu ma dara bi ñu jubóoyee di ànd di diisoo mu féex ma féex kon lu ñu indi leneen Wilane nag moom moom soo mag la moom baal naa ko lépp moom bu ko neexee mu jël yaat dóor la matin mais guddi danañu gisewaat day dóor le matin dóor ba mu bëgg de guddi ñu toog mu toog suma kër ou ma dem këram na continuer di dóor ay rakam la yor na dóor rek na dóor waaye man moom dóor defatuma dara nay dóor rek c'est man kenn dootuma dëgg ci loolu c'est fini moo tax ma bëgg yéen ñëpp ngeen taxaw ci loolu ñun ñëpp ñu juboo ànd nekk benn ànd nekk benn defaraat suñuy dëkk dëkk bi yemul rek ci Kaffrine may féliciter nag le ministre Pape Malick Ndour Je disais que c'est le Mbappé du gouvernement. Ah oui. Pape Malick est un garçon courageux. Courageux. Engagé. moo tax bi ñuy wax CPI moom lañ def numéro un. parce xam naa ne sax après moom mu ngi préparer mais parce que son courage. nit day ñeme pété. te Pape Malick dafa ñeme pété. bi ñu am ay temps mais dañ doon dóorante moom itam mu ngi nii ah dañ doon dóorante parfois mu yónni ñu ay missiles yu metti ñuy dégg missiles yi man muy man muy Aliou ñuy dégg missiles yi mais missiles yi ci politique la bopp tey ñun ñu ànd solidairement di défendre le président de la République et partout avec une loyauté sans borne lu ñuy def fii ci Kaffrine loolu la def ci Guinguinéo di ko def ci Sénégal yàlla dafa def li Aliou Sow doon mébét ci jeunesse bi mu nekkee ministre la jeunesse ci kii lay mottaliku parce que ñun bu ñu nekkee ministre de la jeunesse su Aliou Sow jiite ko. buggoon nañu def SEDEPS bu mag a mag buggoon nañ def lu nga xam ni ci jeunesse kenn mënu si teg bët c'est vrai après Thierno Birahim Ndao celui qui a construit le plus ici man nag bëgg naa ko effacer après c'était Aliou Sow parce que li fi am tabax yëpp yu mag Aliou Aliou Aliou ko def mais nee naa ko dans deux ans c'est fini hein je vais faire Ndour mi moo ñu tabaxal ci ndigalu président de la République ci benn at ñeenti maison de la citoyenneté de la jeunesse Malem Koungheul Mbirkilane Kaffrine sont tous en travaux bu ci nekk se huit cent millions de francs CFA am ay piscine bon xam naa ni ñoom Ablaye Wilane nga xam ni connaissent pas la connaissent pas loolu la am ñu ne la piscine fii dana xaw a jafe ci ñun mais loolu nag bu ñu amee ku mel noonu am nekk au service de la jeunesse ñun ñëpp dañ ko war a jàppale indil ko suñu expérience am na lu ñu xam jaar ci jeunesse ba àgg fii te moom itam mu am à chaque fois jàpp ci loolu moo tax monsieur le ministre Pape Malick Ndour je vous remercie je vous félicite pour votre courage votre détermination mais surtout votre loyauté à l'endroit du président de la République et de l'équipe gouvernementale ma indi leen aussi remerciement du premier ministre Amadou Ba c'est lui-même qui m'a dit ce que j'ai vu à Kaffrine je ne l'ai jamais vu dans ma vie et loolu lu ñu ko may mooy suñu unité lu ñu ko may mooy suñu ànd du Ablaye Sow ko mën du Aliou Sow ko mën du Ablaye Wilane ko mën ñooñu ñoo ci gën a fës rek ñett ñooñu ñoo ci gën a fës ñoo ci am tur ñoo ci ëpp tur waaye ñi nekk ci suuf nekk ay maire nekk ay responsable dans les quartiers dans les villages les plus reculés dans les hameaux ñooñu may tey ñu siiw ba toll foofu moo tax yéen la ñuy remercier leen la ñuy gërëm terminer nag remercier mes directeurs le DG de la SONAGED Mass Thiam l'inégalable Mass Thiam waaw ah, lii maa ngi ko wax lii maa ngi ko wax avant-hier laa ko jox instruction et tout ce qui a été ici il l'a fait sans man j'étais surpris de voir cette belle organisation parce qu'il a donné aussi de la volonté et la mobilisation surtout des agents de l'UCG féliciter aussi le directeur général Abouba qui a été adjoint au gouverneur ici à Kaffrine maintenant li des nag ASC nañu waxante dëgg Abdoulaye Sarr on a grandi ensemble sous la harnais dans ces affaires nawetaan ASC des na lool si nous voulons faire des ASC de développement il faut que ñu génn ci football bi kese dugg carrément dans le développement moi je suis un exemple je donne aux ASC chaque année pas moins de 400 000 francs de subvention chaque ASC de la commune. Mais en contrepartie, qu'est-ce que je gagne Sinon que le plaisir de les voir bien jouer. Mais la propreté, je ne les vois pas. Les actions de développement, je ne les vois pas. L'encadrement des jeunes pour que nous accédions aux sources de financement, je ne les vois pas. Et après, on dit que c'est l'État. Or, les ASC, moi je dis toujours à Amadoukan, la plus grande société civile du Sénégal, c'est l'ONCAV. Il y a des gens qui se prennent pour les jours, et Africa Jom ban ñaata nit moo fa nekk Alioune Tine où est son sec où adjoint où est son bureau y en a pas alors que chaque ASC dans son quartier est le leader de l'action dans le quartier mais pourquoi vous laissez la place à une société civile inexistante alors que vous vous êtes la vraie société civile loolu lu ko indi mooy ngeen jël seen responsabilité quand Amadou Kane m'a dit la subvention de l'État monsieur le ministre de la jeunesse la subvention de l'État pour plus de 8000 ASC. On dit que c'est 40 millions. Moi, je suis un syndicaliste. Je suis membre du gouvernement. Mais 40 millions, xeeb naa ko pour une subvention de, de l'ONCAV. Mais c'est parce que vous devez jouer votre rôle de contre-pouvoir. Vous devez jouer votre rôle dans ce qui se fait dans ce pays, dans ce qui se fait dans les quartiers. Mais moi, je ne vois pas les ASC. ASC ci man. gars yi ñëw dañuy euh, dem phase nationale dañuy ne mais après je ne vois pas dans l' engagement boobu ngeen war a taxaw organiser ko participer ci lépp lu ñuy def ci dëkk bi ngeen am poids bi ONCAV am ci réew mi ay yi am ko seen quartier yi ORCAV bi am ko au niveau du CRD le gouverneur il est là il peut faire un CRD tant que lu nawetaan du convoquer ORCAV ah oui parce que l'ORCAV n'occupe pas sa place dans la vie active l'ODCAV la même chose il suffit pas que mu def 3 mois yi après c'est mort il faut que mu nekk 12 mois sur 12 d'encadrement des jeunes mais celui qui vous parle est un produit moi j'ai été ramasseur de balles président de commission d'organisation président de zone président d'ODCAV président d'ODCAV membre de l'ODCAV donc je connais màggetum gelo kenn du ko jàngal nu ñuy ngóobee nañu nañuy waxante dëgg def diagnostic de nos ASC def diagnostic profond de discuter de nos ASC, du contenu de nos ASC. Le développement du football. Aujourd'hui, Kafrine, je donne l'exemple de Kafrine, 4 ASC. Mais nous avons des mercenaires, nous. Mais quelle est la politique que nous menons pour que les jeunes puissent trouver un cadre d'épanouissement, de formation jusqu'au sommet Mais ASC, dafay def 4 ans, après mu Moudano. beneen ASC xew fii amoon na temps Saloum moo fi xewoon léegi ñu ngi ci quatrième division je crois parce que parce que ay Gombe ay tout ça là ça disparaît parce que dañuy jëli ay mercenaires après c'est fini il faut que ngeen réfléchir ci loolu ay say gën a ñëwaat nekk au cœur de l'action mën a développer ce qu'ils ont à développer le reste vous aurez l'accompagnement de l'autorité je réitère le président Macky Sall nee na ma dana recevoir l'ONCAV et il l'a dit en conseil des ministres devant tout le monde cette audience là avec le ministre de la jeunesse et le ministre des rentable pour l'ensemble du mouvement associatif nawetaan en tout cas Amadou Kane maa ngi lay féliciter maa ngi lay remercier mënatoo def lu raw li nga ma defal ren ci teranga ci taxawaay durant deux semaines après que Aliou Sow ait organisé na FESNAC ici c'est la deuxième grande activité nationale durant deux semaines où tous les fils de quatorze régions du Sénégal sont rassemblés à Kaffrine loolu nag aw ma seen pay ci loolu maa ngi féliciter ñëpp di sant ñëpp wasalaam